Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yen yéen julit yi mbokki talib yi ganna bañ sante yalla julli ci nante bi alayhi salatu wassalam ñi ngi len di nuyu te di len balu ak di len baal di ñaan suñu borom bo leen jéggal ci bisu mag bi nga xam ne ñu fi dajale muy bis bo xam dañ ci fatlu ko dajé bi nga xamee ne Sayxul Xadim daje woon na ci borom darul maqti gannaaw bi mu ñibbisee ci tukkeem bi muy daja mbégte daja bu màgg a màgg ñuy fàttaliku bis boobu. bis boobu nag nekk mbégte mu rëy rëy moo xam ne euh, mbégte mu rëy la ci mboolem jullit ñi rawatina mboolem taalibe yëpp ñu koy fàttaliku fii nag ci Daarul Muxti nekk fii ci kër Serigne Abdourahman mu borom Daarul Muxti ci eh, wetu Serigne Mbacke Abdourahman di doom di ab xalifaam ñu koy màggale fii ci këram eh, di sant mboolem mbokk yi fi teew ñëpp balay loolu rek mbokki jullit yi ñu santaat suñu borom bu baax a baax a baax ci xéewal yi nga xamee ne moom lañu moom la defal waaye rawatina xéewal gu màgg gi nga xam ne moom lañu ñu xéewale te muy suñu kilifa gu màgg bi muy alxutbu nii di alxawsu samadaani di ki kilifak jamonoom di ki xettali jamonoom di sunu sëriñ cheikh ahmadul ahmadou bamba loolu xewal gu màgg a màgg la ñi ci sant suñ boroom muy xéewal goo xam ne gum ñu defal la muy yarkat bu màgg bi di jàngalekat bu màgg bi bi nga xamee ne andil na xeetu yonante bi alayhi salaatu wasalaam ay boroom xam-xam yu màgg a màgg ay nit yalla yu mag yu sell yo xamne ne ay tanef lañ ñu bax lañ bokku na ca nit yalla yoy mu ñu andil borom xam-xam yu mag yoy mu ñu andil ca ña ca gën a te gën ci feñ bokku na ci Cheikh Ibrahima fat Cheikh Ibrahima fat nak ñi gën go xamee ci mam Thierno di rakki cheikhul khadim ñu bokku wenn wajuru wu mom lañ bëgg fatalante ngir ñu man cee jàngatewaat ay jikkoom man cee dolli ko man cee wute ab yóbbal boo xam ne danañu mën a jariñ suñu àdduna ak suñu àllaaxira Cheikh Ibrahim nag dafa feesoon dell ak ay jikko yoo xam ne jikko yu màgg màgg la jikko yoo xam ne kenn ku nekk ku dégg Cheikh Ibrahima rek xame nga ko jikko yooyu waaye dañ cey jël lenn rek ngir bañ a guddal ñi mën cee jàngate ndax mënuñoo jot lépp jikko yëpp mënuñu koo andi ndax dañuy wax ne lépp loo xam ne mënoo jot léppam kenn du bàyyi la ca ëpp kon daal ñi tànn ci lenn rek waaye bala ñoo wax lenn ci ay jikkoom dañuy wax ne Cheikh Ibrahim boroom xam-xam bu màggoon la boo xam ne fees na feesoon na dell ak xam-xam te loolu ci tënk rek. ngir ñu gën a mën a xam-xam-xamam li koy gën a wane mooy ñim jàngal ñim jàngal nag buñ cee tuddee ñenn rek day daal doy sëkk te mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadal ñi nga xam ne ñooy doomi Cheikhul Khadim ak sëriñ ma Samba Mbacke mi nga xam ne mooy rakkam ak e, doomam di sëriñ Mahmoudan Koso mi nga xamee ne gannaaw bi moom la sancal daara mu jàngal ñu bëree bëree bëri ci kilifa yi kon loolu day wane ak xam-xam bu mu amoon bokk na ci liy gën a tegtale xam-xamam mooy seexul xadim bi nga xamee ne dem na ba amatul jot moom la féete woon daara xam-xam ni muy jàngale xam-xam kon loolu day doy sëkk ci wàllu ak am xam-xamam bu dee wàllu jikko yi nag danañ ci tànn yenn rek ngir ñu mën koo yóbbaloo bi ci njëkk mooy Cheikh Ibrahim képp ku ko xam xam ne ku muccoon la ci li ñuy wax añaan ak rëy ak mboolem euh, amraadul xalbi yi nga xamee ne day yàqal nit ki yooyu muccoon na ca te li koy firndeel mooy mbokkam mii di seexul xadim radiyallahu anhu nangul gim ko nangaloon ak gërëm gim gërëm dogalub suñ borom ci ngëneel li nga xamee ne yàlla defal na ko ko mu nangul ko ko loolu lu jafe-jafe la ci nit koo xam ne yéen a bokk benn baay kon loolu day wane ne ku muccoon la ci mboolem amraad yooyu nga xam ne feebari xol la te mu tasaaroo lool ci jamono ji ñu nekk loolu kenn ku nekk xam ne ne seex Ibrahim ku muccoon la ci feebar yooyu ñaareel ba mooy ku laabiroon la bëggaloon ñëpp njariñ bëggaloon ñëpp aw yiw te loolu li koy firndeel ba tey mooy bi nga xamee ne Cheikh Abdul Xaadir eh, gane na àdduna mi koy joxe aw wax nañ ne bi ko sëriñ bi bégalee ca yoon wa wax ne ko diggante bi ngay dem ba ba ngay dikk koo fi dajal jéggal nañ ko wax nañ ne dafa yàggal tukki ba lool ci yoon wi yàgg lool ngir loolu nga xam ne sëriñ bi wax na ko ca wax na ko ko ca bégale ko ko bëgg ñëpp mën cee jariñu te mooy njéggal googu nga xam ne sëriñ bi wax na ko ne ko fii ba ba ngay diggante bi ba ngay dem ba ngay ñëw koo fi dajal jéggal nañ ko ko kon loolu day wane ne Cheikh Ibrahim ku bëggaloon ñëpp aw yiw la waaye ku bëggoon ñëpp jariñu la bi ci des mooy Cheikh Ibrahim nit la koo xam ne da daan jëf te du ca boolay wax te loolu li koy gën a wane mooy wax nañ ne ku noppi woon la te it ku néew woon ay wax la te jëf te bañ cee boolay wax dafa bokk ci melo yu gaa yu baax yi ndax ñoom dañuy jëf rek te yàlla tax waaye duñ jëf ngir ngis ngistal wala nit ñi gis leen. am na xisa buñ ciy nettali wax ne am na benn màggalu daarul moxti goo xam dafa xewoon benn pël romb benn waay bu doon waxtaan bu doon xadis di waxtaan ci maam Thierno pël ba dem ba dikkaat fekkaat ko muy kon ne mu laaj kii ne kii kan lay wax ñu ne ko ci maam Thierno lay wax mu ne kii de waxut dëgg ndax kooku bëri wutoon wax kon loolu day wane ne ku woon ay wax la. jëf la daan def waaye daawu daawu ci boolay wax. ba tey biñ koy tëjee rek mooy jeexit yi nga xamee ne bàyyi na ko fi te muy jeexit yu bëree bëree bari ci wàllu diine ak ci wàllu adduna bokk na ci wàllu adduna jeexit yi mu fi bàyyi. mooy gor bi mag bi nga xamee ne defoon na ko te muy ñeent fukki kilomètre yoo xam ne moom goroon na ko te dara taxul mu gor ko lu dul jàngale jàngale ak jaamu yàlla ak liggéey ba léegi ñeent fukki kilomètres yooyu ñu ngi fa ak njabootam nekk fa di fa jàngale di fa yare di fa liggéey di fa fàggoo lu lew kon loolu nag day wane jeexit bi nga xamee ne euh, jeexital na ko mooy ab liggéeyam moom Cheikh Ibrahim kon daal euh, dañ koy gàttal foofu rek bu ko defee di ñaan suñ borom fayal ñu ko te tawfeexal ñu bañ mën a sóobu aw yoonam ci barkeb cheikhul khadim kon ñi ngi ñaanal mbokk julli ji fi tew yëpp e, di ñaan suñu borom mu defal ñu magal nga ñu tewat ko ay deewon yu bëree bëree bëri te lepp luñ fi ñaan suñu borom nangul ñuko ko te defal ñuko ko cheikhul khadim ak adiy adiy borom darul maati di ñaanal serigne Mbàkke mi nga xamé ne mo nek fi nek fi nekkal fi Cheikh Abdourahman di ab khalifam mu yag fi lol ak sëriñ Abbas mi nga xamee ne mooy xalifa borom Daarul Muxti di ko ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.